أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن tey nañu fa seene dikk ci turu yàlla bu am solo mi asmaullahul xusna waaye nag bu ñuy wax tey mooy bu bari njariñ bu am solo mooy tur boo xam ne képp koo xam yaa ngi koy wax moo xam teew la nga wala teewlu woo suñu borom boo ci fasee li nga bëgg dinga ko am képp kuy xëy di ko wax suba ak ngoon juróom-ñaari yoon lu am solo la mooy ban baat la xasbiyallahu laa ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim laa ilaha huwa alayhi tawakkaltu wa mooy baat yi ngeen gis ni képp koy wax suba ngoon euh, suñ boroom loo ci fas rek suñ boroom defal la ko kon lu mat a bàyyi xel la lu mat a bari la muy tudd yàlla jërë ngeen jëf